asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki alquran di ab jàngalekatub alquran wala jàngkatub alquran waaye bokki jullit yi nga xam ne ñoo senq diine lislaam ji noo ngi am mbégte toog fii ci kër sëriñ mo Mouhamadul Xabbaan ibnu sheikh Mouhamadul Fadal mu ànd ak waa rabitatul quraaniya ci njiitul Cheikh Mouhamadul Basir moom sëriñ Abibu mu feggoo ak sëriñ Ibrahima si ak sëriñ Xaali Jaxate ak ñiñ ko seqal dend ak waa daayira muxadamatul xidma bi nga xam ne sëriñ Afiya Buso moo ko jiite ñu jot ndigal nag ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Muntaxa ndigal loo xam ne mi ngi jëm ci dogalub yàlla bi nga xam ne wàcc na ci kaw suuf te wàcc ci réewum senegal wàcc ci sunuy bokk mu di daje googu nga xam ne ñaari oto yi daje nañ ko ci yoonu Tamba wi ba ay bakkan wadd ca ay nit gaañu ca loolu nag sëriñ Mouhamadul xaa xam ne lu bàyyi koo fi yàlla la mu wóor ko ne dara mënu ci dara lu weesu tuub delluwaat ci yàlla ak ñaanal ña dem sun borom jéggal leen ña ca des sun borom delloowaat leen ci seen sago looto moo tax mu jox ko ndigal nag ci njàngum alxuraan moom santaane ci réew mépp ci ku koy déglu ñu fab kàddu gi jox ko sëriñ Mouhamadul Xabbaan mu jottali ko bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yi. bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah. bokki jullit yi. fu waay mën a nekk. ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal. rawatina nag bokki taalibe yi mu Cheikh Mouhamadul Muntaxa moo leen di nuyu di wax inna lillahi wa inna ilayhi raajihun ci dogalub sunu borom bi wàcc ci bokki jullit yooyu muy dogal boo xam ne sunu borom da koo dogal te ab dogalam nag kenn mënu ci dara waaye sañees na muñ ak ñaan yàlla nag sëriñ bi wax ne massawu ñi ñi xam ñoo mi ngi massawu ñi nga xam ne ñoo ca am ay bokk. di ci di ci ñaanal nag ña ca bàyyi ko. sunu borom defal leen ak njëgal. teg loxo nag ci seenu njaboot. te ña ko am. wala seeni waajur. ñi ngi sant ñëpp. ñi ngi sant ñëpp. ngir bu subaa. ngir bu subaa. ku di ab taalibe nag. sëriñ baa ngi lay digal. te nga yor daara. te nga wala nga mën a jàngulu. wala nga mën a jàngulu. bu dee bokk jullit yi. bu dee bokk jullit yi. ñu ngi sàkku ñoom. ñu ngi koy sàkku ci ñoom. ci noonu ko ci noonu ko sëriñ bi waxee. ñun ñëpp ñu ànd. ñun ñëpp ñu ànd. fu daara nekk fu daara nekk. ñu doxal fa loola. ñu doxal fa loola. ñaan yàlla jàmm am ñaan yàlla ñu la ca des jàmm yàlla def ko ca. ña ca rëcc. ña sunu borom defal leen ak wér. sunu borom defal leen ak wér. akuk mucc. di dogal boo xam ne. lii nag day ab dogal boo xam ne. sëriñ bi wax na ne. sëriñ bi wax na ne. wàcc ci yow wàcc ci yow. dara sunu borom mi ko dogal. sunu borom mi ko dogal. moo koy dogal. moo koy dogal. la ca gën nag kon. la ca gën nag mooy muñ ko. waaye nag lu tiis la. waaye nag lu tiis la. ndax boo dee xool ñi ci bàyyi ñëpp. ndax boo dee xool kat la ca bàyyi ko lépp. dañuy ñu yaakaaru. dañuy ñu yaakaaru. ndaw. di ay ndaw. waaye nag fan jëm. waaye fan jëm. nañu ñaan suñu borom mu gënal leen fi. nañu ñaan rek suñu borom mu gënal leen fi nu bàyyi ko. lépp lu suñu borom def rek. ndax lépp lu suñu borom def. ak muñ. ak muñ. cant ni ko Serigne Touba di waxee. ni ko Serigne Touba di waxee. sabru ak sukkur rek moo ci war. kon ñi ngi sant ñëpp. ci ñu am farlu ci. ci ñu am farlu nag. fépp fu jàkka nekk. fépp fu jàkka nekk. bu ñu mënee wàcc kaamil. bu ñu mënee wàcc ay kaamil. bu dee daara noonu. li ci des nag da koy bàyyee ak bokki taalibe yi. ndax fii ñu toog nii. ndax fii ñu waa raabita bi. waa raabita bi. ak munasamaat yëpp daal. ak munasamaat yëpp. Euh, lépp waaye lépp ñu ngi aju ci sëriñ bi. kuréel yëpp daal ñu ngi nii waaye dañoo aju ci sëriñ bi. ci ndigalu sëriñ bi rek. kon nag fu fi mbooloo mën a ne. ne na xam ne daal lii mooy ndigal li. ñu ngi ñaan nag lii gëj fi. dànkaafu tam sëfoor si. di dànkaafu nag sëfoor si. ñuy bàyyi xel ci. ñuy bàyyi xel ci. loo gis dogalub suñ borom la. loo gis dogalub suñu borom la. waaye nag ak dal dana tax mu woyof. nag ak dal dana tax dogal ba woyof. ñu ngi ñaan suñu borom musal leen. musal oto yi. musal oto yi. ndax mënee su ta ñàkk dugg ci oto ndax mënee su ta ñàkk dugg ci oto waaye nag buñ ciy dugg waaye nag buñ ciy dugg nu xam ñun ciy duggee nu xam ñun ciy duggee ñay dawal itam ñay dawal itam xam nañ ci ñuy dawale xam ni ñoom nañuy dawale am na ku baax am na ku baax ku waxoon ni ku waxoon ne dawal bi gën ñoŋ ci dawal yi. dawal bi nga xam ne moo gën a ñoŋ ci dawal yi. bu bu ne tekk. bu nee tëcc nga ne tekk. bu nee bu nee yàng nga ne yow. bu nee yàng nag nga ne yor. ku koy def rek ku koy def rek. suñ borom mën nañoo ci lépp. ñoo ngi ñaanalaat ci taxawaayam. ci taxawaayam. ci lépp lu jóg. ci lépp lu jóg. dana ca taxawal nam ca war a taxawee. dana ca taxaw nam ca war a taxawee. ndax lii ba mu ko yëgee ba léegi. daa daal di taxaw temm ci ne nañ yëgal ñëpp. ñaan suñu borom yemale fii nattu. ñaan sunu borom yamal yamale fi nattu bii. ko am ku mel noonu nag. ku da nga koy ñaanal yàlla. da nga koy ñaanal yàlla. sunu borom yàggal ko fi te bàyyil ñu ko fi. ak mbooleem njabootam yi mu jaboote. ak mbooleem nag njabootam yi mu jaboote yëpp. di ay rak. di ay rak. di ay seex. di ay seex. di ay bokki taalibe. di ay bokki taalibe. ñu ngi sant ñëpp. waaw sëriñ mii nee na moom la joxoon ndigal li mu wax. ñoom ñëpp dañ maa jox kàddu waaye moom ñëpp dañ ko joxaat kàddu gi ndax li ma sëriñ bi naa wax ndax li ko sëriñ bi sant na na wax ku ci waxoon nag mu doy waaye ku ci waxoon ñoom mu doy kon ndigal laa ngi noonu sëriñ bi wax ne kon bu subaa ci altine ci altine ji na ko ñëpp xëye muy bis boo xam ne bisub ñaan la di ñaanal ñu dawlu ji sun borom jéggal leen te yërëm leen di tuubaat it delluwaat ci sun borom ñaan dogal bii gëj fi di delloowaat it nit ñi ci yàlla di wax ne mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoo ca ñàkk nañ ko muñ muñu wu rafet te delloo lépp ci dogalub yàlla xam ne yàllaa ko dogal te dara mënut am te yàlla dogalu ko. kon noonu rek la demee ñun ñëpp ñu maase tàllalaat suñu loxo sëriñ bi ñaan ñu ñaan sun borom dogal bii gëj ci réew mi lool te mbooleem ku ci bàyyi ko sun borom yóbbu la àjjana ña nekk ci lali hôpital yi sun borom wéral leen te delloowaat leen ci seen sago. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.